tuuti rek moom laay àggale sama wax gàmmu bi daa la wax boobu weesu nañ ko weesu nañ ko kenn sañul wax leneen bidaa bu rafet ak bu ñaawit loolu duñ ci sori boroom xam-xam yi wax nañ ci dama ne li ñuy def ci senegaal lii ñuy def ci Sénégal dafa xaraam waxuma la nekk bidaa nag waxuma la nekk bidaa dajale ay nit la nga gën a xante woo mooy nañuy lekk nañuy naan di secretu ñuy concours di wane ñam yi di ko filmer di wane ku gën a rafetle bernde national kikitika mba di filmer xaram ngeen xaram ngeen waxuma seen jëf yi yéen ci seen bopp yenn xaram

am na ñoo xam ay ay ay centaine de millions lañuy def ci benn goudi ngeen di tëb di dal di cëppi cëppi delu len ci yalla te bay seen caaxaan yi lii ñuy def tudde ko gamu baaxul ku wax leneen dang ko layoog sa borom jaxase ay goor ak jigen takki radio di bare ay mbedd tok di fen di sosol yonent bi dégg naa ci ku naan yonent bi xam na li jëkk li mujj xam na li ci asamaan xam li ci suuf fenn waxoo dëgg qul law kuntu aalamul xayba lastaksartu min al xayri wa ma massaniya suu yàllaa ko ko waxloo nag xul boobu moom xam ngeen ko ci alxuraan yonent bi xamul xaybu xamu ci lu tolloog leen li tuwee suñu boroom lay soob mu xamal ko aslëf ca la ko ca soob bu ñu doon natt xaybu ci yaramu melentaan yaramu ñay da nga naan melentaan wa ca takk yonent bi xamul ci loolu lu ci toll noonu bu ñay ñay bu xëy bu tolloon na ñay nga jël melentaan as sànq wi tuuti teg ko ci kawam yonent bi xamul ci xëy bu lu toll noonu ci misaalu xelum nit rek laa wax ngeen di tànqal nit ñi di sos di sosol yàlla di sosal yonent bi fanaanee wax di jàpp xaalis di foowe di baatre dama ne loolu ku ne dagan na haram na moo wér waxaguñu nag ay bidaa laag dootul bidaa foofu moom romb nañ ko romb nañ foofu di dem bu yàgg li ngeen di def dara baaxu ci ñam yi ngeen di joxe am na circonstance yu mu gënoon a jekk am na ci nag ñuy def lu baax kenn mënu ko weddi bu fekkee ne ni alquran gi ngeen di wax def ngeen ko ni ngeen ko war a defee xëy suba jàng ko njàngin mu matale mu matale ci kenn teggin ya te yar ba su dee loolu am na muy sax à la limite te bañ a ànd ak nag def ko taabudan nit ñi kenn ku ne jël kurusam ñu def ay astaghfirullah ndax yàlla moos jéggal ñu suñuy ñaawteef def ay salaatu ala nabi jox ko ki nga xam ne moom moom la ñu wax neey moo moom bi ku maandu ku bari xam-xam toog ñu koy laaj muy def fatwa di di gindi nit ñi ci seen seen seen seen seen diin ak seenu dundin di waxtaane ak bokk bokk yi gëj a gisante saafonte bu añ jotee ñu togg ñam yu ñam yu nite ñam yu nite laa wax xam ngeen li may bëgg a wax jox ko nit ñi ñu lekk ko te bañ jàpp ay gan VIP jox leen loo xam ni bokkut ak la ngay joxe fee nga xam ni cere ju amul ñeex mu doy la xam ngeen bu baax li ma leen di wax du ngeen ay dof am na ñuy def lu mel noonu am na ñu koy def buñ ko defee ba tàkkusaan